féliciter suñu leader docteur kër Diop nekk euh, le président des Guelwaar FDS les Guelwaar xamante ni moom dafa samp candidature am pour dem ci élection présidentielle 2024 yi fan yi yëpp nag ñoo ngi woon ci parrainage bi parce que FDS dafa damay faral di wax ni parti de terrain la ñun terrain bi lañ gën a euh, di di di ci loolu parce que parrainage bi ñun moom alhamdulilah parce que dañ ko teeloon na anticiper teel cee liggéey yaakaar naa bi ñu jógee Thiès ak euh, Ndiaga Sylla bañ fa demee mu formé ñu pour ñu war a xam nu ñuy pare parrainer loolu yaakaar naa avant ñuy joxe kii rek ñun tàmbali woon nañoo collecté parce que xam nañ ni li ñu laaj du génn ci biir carte d'identité yi moo taxoon bi parrainage bi ñëwee sant nañ ci yàlla bu baax a baax ba liñ ci bëggoon lépp lu ci bari am nañ ko xëy na après suñu Abdou Lahad dina ñëw ci point boobu gën koo yaatal. ñun nag point bi nga xamante ni ci lañ bëgg a dugg rek pour tënk mooy dañoo fee am ñaari point yoo xamante ni ci biir dëkk bi la muy point yoo xamante ni yu ñu jaaxal la ñu ci laaj nag gouvernement Sénégal ay tontu parce que dañoo gis temps yi ci biir dëkk bi boo duggee ci Touba chef de village yëpp boo fa demee ñi ngi dajale di laaj ni léegi ñoom dañoo bëgg a yokk euh, kii bi bourse familiale bi bourse familiale dañoo wax dañ ko bëgg a yokk ñu dem ba à deux mois trois mois des élections ñi wër di laaj ay carte d'identité ñi indi leen carte d'identité yi parce que dañoo bëgg a yokk bourse familiale bi loolu di lu ñu jaaxal parce que bourse familiale fekkee ñoom dañoo may ay enquêtes yu ñu ci def dem ba seen pouvoir di bëgg a jeex desul lul ay ñaari weer ñett ñuy wër di laaj carte d'identité yi xamante ni chef de village boo ci dem ma ngay demander ay dëkkandoo ni dañoo bëgg yokk bourse familiale yi loolu di loo ni lu jaaxal la ca nag élection yi ñuy jëm dafa war a nekk élection yoo xam ne lu transparence yu leer nañ parce que président de la république si nga xam yàlla dogal na moom bokkul ci élection ko war mooy na organiser ay élection yu leer nañ ku gañe gañe loolu nag ñu ciy mettre en garde président de la république ak autorité yi di ciy wax chef de quartier yit ñoom ñu ñu ñu ñu maandu ci parce que koo xam ne dem na ba nguuram di bëgg a jeex mu bëgg a indi loo ni lu kenn xamul la loolu moom duñ ko bàyyi mu jàll beneen bi ci des mooy mbirum retrait carte d'identité yi boo demee ci arrondissement ndaam bi yaakaar naa ni joxe nu carte d'identité bi teen xel te ñun waa Touba dañuy gis à chaque fois rek bu élection jubsee dañuy mel ni dañuy indi fi ay sabotage ci ab processus électoral bi parce que lu toll ni Touba nekk deuxième deuxième ville du Sénégal gis ngeen recensement bi jàll sax Touba léegi mooy jiitu moo nekk département de Mbacké léegi moo nekk en tête waaw fu mel ni département de Mbacké nag man la ne man a nekk en tête benn lieu ñu fay dajale ay nit ñu fay jëlee ay carte d'identité loolu warul mën a ne boo demee Dakar dem Thiès boo demee ay lieu lieu parce que bi ñuy bindu ñi ngi doon bindoo Darou Khoudoss ñi ngi doon bindoo Sam ñi di bindoo fii ñu di bindoo pourquoi pas fa nit ko man ko décentraliser nit ñi mën a dem foofu di jëli seen carte d'identité yi mais benn lieu nga bëgg nit ñi dafa jëli carte d'identité yi xamante ne bis bi ñoom sax léegi dañoo dañoo gérer affaire ba lu néew la xëy di joxe man gis naa ci ñoo xamante ni ñaari yoon ñetti yoon lañ dem dañoo mujj découragé toog loolu di ay sabotage yoo xamante ne tàmbal na parce que Touba moom amuñu fi yaakaar tàmm nañ ba saa bu élection jub see rek genre yu mel noonu la ñuy la ñuy kii parce que jeunes yi xam nañ ñoo ëpp ci ñi war a voté ji loolu nag ñu ciy wax préfet yi ak sous préfet yi ñoom ñi organiser élection yi nekk ci gox bi bu ñu bëggee nit ñu jot seen i rek mën nañoo def pexe yoo xam ne nit ñi mën nañ cee jot jot gaaw parce que dëkk bi yaatu na am na nu ñu ko mën a tasaaree nañ tasaare nit ñi jox leen seen carte d'identité yi parce que nit ñi dañoo bëgg pare parrainage yi nit ñi dañoo bëgg a voter ci parrainage bi daanaka jeex na loolu daal mooy li nga xamante ni mooy ñaari point yooyu xamante ni man war naa ko ci syndicat ndax fi ñu nekk li fi xew loolu lañ mën a wax donc ñun dañu def ay jàngat ci dëkk bi ñu nekk muy département de Mbacké particulièrement Touba parce que bu ñuy wax Touba la ñuy wax ndax moo am dayo boobu dañu fi gis loo xam ne yaakaar naa jëmul jëmul kër te yàgg na fi pendant 12 ans mi ngi fi wala boog lu ko jiitu te yaakaaroon ne ay solution dina fi am di fi nguur gi nekkee mais dafa mel ne loolu dafa yokk parce que dañu dëkk ci ay gox-goxaan yoo xam ne dañu fi gis loo xam ne ni jëmul kër mooy dañu gis dëkk bu tal ne Touba ngay dem ba guddi ba guddi ngay am ndox te loolu liggéeyu état la ngay dem dëkk Touba maanaam ci gox-goxaan yi nga xam ne moo nekk ci biir Touba wër ko ay nit di agressé yor ay jakarta yor ay paaka yor ay kii di nangu ay téléphone yu jàmbur te loolu insécurité la te loolu mi ngi Touba. beneen bi ci topp nga xam ne moo gën a sonal waa Touba mooy extrait na saa ñun mënuñu ko am département de Mbacké mais rawatina waa Touba mënuñu ko am loolu nag li ko und mooy dëkk bi lañ joxut dayoom dëkk bii li mu toll nga xam ne boo nee Dakar moom nga ciy teg wala boog département yépp mën nañ ne département de Mbacké moo ci ëpp te bu ñuy wax loolu Touba moo tax dayo boobu te état da koo fàtte ci lépp loolu nag waatu Touba deloon nañ ko ko ba tax mënu fee gagné dara mais dañu xam ne ñun Touba ci Sénégal la bokk kon nag loolu solution bi ñu ci am ak xalaat yi ñu ci am mooy ku ñu wax docteur Babacar Diop maire de la ville de Thiès la ñu yaakaar ne procès am nekk na procès boo xam ne bu ñëwee ñun li ñu bëgg lépp lépp lépp dina ko matal à cent pour cent parce que nit la koo xam ne xam na li mu bëgg ndaw la te xam na fi muy teg tànkam xam na fi muy teg loxoom. di wax ci turu jigéen ñi samay kàddu nag sensibiliser dong la ndax Touba fii boo nee élection wala nga ne parrainage koo ne jox ma sa kàddaa ne ma parrainel la sonn nañ ci lool koo mu ne la xaalis ndax état bi loolu lay jëflante nit ñi koo ne élection mu ne la. jox ma 10 000 maanaam 2019 ñañ fi joxoon ay 10 000 wala ñu jox leen ay 5 000 booboo ba léegi lañ leen mujjee gis ñu am ca ñoom lañ bëgg dem fàtte leen ni ca seen nguur ñoom fàtte waa Touba damm nañ sonn nañ tàyyi nañ depuis 12 ans yi fi Macky Sall toog booboo ba léegi jigéen Touba ñoom kaani rek la ñuy maq kon ñu bëggoon suukar si docteur Babacar Diop yow ñu xam ci dara ñun waa Touba ndax Touba fi amul dara lu dul ay marché fi ne jaay amul usine amul dara jigéen ñi sonn nañ ay nañ may woo nag sama mbokki jigéen yëpp ñu xëpp seen bët tey xool ku la woo ne la 10 000 la ngi wala 5 000 nee ko man lijjantiwuma loolu man ki nga man xam ne sama avenir ëllëg ak sama jaboot moom la may mën a lijjanti ko laay lijjanti waaye lijjanti ma koo xam ne su ñëwee bu la joxee 5000 wala 10 000 fii ba fukk juróomi at wala fukki at ko gisati maa ngi nag soññ sama mbokki jigéen docteur Babacar Diop moom kese moo ñu ko màccee te lii may wax nii nag balaa ñoo xam nga dina màtte du màtte dugal ci sa loxo ndax docteur Babacar Diop ku dégg jëfinam ku xam ay critères am xam ne doxul ci caaxaan doxul ci gerul kenn jëndul kenn day wax ci dëgg di def ci dëgg kon nag may ñaan sama mbokki jigéen yépp képp ko bëgg sa avenir doom ndax gaal gi sonal nañu xamoo ni karag waaxu ne lépp gone yaa ngi dem ñàkk point ak gis sa waajur muy souffrir te fii la ëppee nag ci bowol gi la ëpp may ñaan sunu borom nag lii ñu bëgg ci gi yàlla sunu borom defal ñu ko te am nañ yaakaar bu baax ndax dëgg rek mooy Abdoulahan Mbuub responsable FDS les Guelewar Touba Mbacké danoo daje woon fii tey di waxtaan ak askan wi di sant askanu departement Mbacké région de Diourbel en particulier mais particulièrement euh, euh, commune de Touba mooy bi ñu duggee ci parrainage bi danoo ñëw dem ci askan wi wax ak ñoom parce que ñun suñu leader dafa wax ni yoonu dëgg dafa metti ñu dem ci yoonu dëgg woowu pour wuti parrainage mais askan wi nga xamante ni dëgg ñor na leen wax dëgg yàlla jàppale nañu ci parrainage boobu ba environ ñun de duñ wax chiffre yu mag chiffre bi nu am la ñuy wax ba environ am nañ ay 10 000 parrain muy nit ñu wóor parrain yu leer nañ ñu jox ñu ko ñu jébbal ko suñ responsable régional de euh, Baye Bara Seck mu jébbal ko parti bi loolu moo doon sababu ndaje mi tey pour leeral ñun li nu am ci parrainage yi ak ñi ñu ko parrainel dëgg bi nu bëgg ak changement bi nu bëgg loolu nag boo gisee ñu koy wax tamit dañuy mettre en garde ñi nga xamante ni danoo ñëw yor ratu gumba ne danoo am ay 3 millions parrain dëkk bi façon parrainage bu ne nga fiy dégg 3 millions parrain ku ko dégg sa xel war naa tey ñun ñuy mettre en garde que ni ñun liggéey bu rafet bu nu def ci département Mbacké gëm nañ ni FDS les Grégoire yëpp moom lañ def au niveau national kon ñun ñu am parrain yu leer naññ bu dee seen 3 millions de parrains yooyu ñuy lim dañ cee bëgg a profité pour kale yenn euh, parti yi pour kale yenn leaders yi nga la waaye nañ leen ñu ngi leen di ñaan ñun ci dëgg la ñuy dox euh, docteur kër Diop parti FDS les Grégoire nan ko ca kaccet parce que ñoom parrainage yu leer naññ lañu am askan wii jox ñu ko ñu jox ko suñu responsable euh, régional mu jox ko te yaakaar naa ni raison bi yëpp noonu lañ def kon loolu moo waraloon tey ji ñu daje fii pour leeral borom 3 millions yeeg borom 30 mille yeeg borom 40 mille yeeg yooyu ay chiffres la mais li wér wóor de ñun de 10 000 la ñu am 10 000 yu leer naññ soxlawuñu lim bu bari bi lim bi ñu laaj muy parrain yu wóor moom la ñu am moom la ñu def loolu moo nekkoon li nga xamante ni ñëwoon nañ tey pour leeral ko. xelam na xelu askan wi. moo tax sax ñun ñu ciy wax parce que euh, président Macky Sall ku ne xam nañ def na fi deux mandats dem na ba jeexal wut benn problème teg ko problème ñu ni bërit ñu ni am nañ 3 millions parrain loolu yaa quelque sos boo xamante ni nekk na ci suuf looloo tax ñuy mettre en garde di leen avertir ni buñ ci jubloo kale nit ñi dañuy sonn mais loolu du jàll parce que 3 millions bu buñ ko waxee am na luñ ci jublu loolu nag li ñu ci jublu mooy kale leader yi waaye nag nanu fexe ba buñ ci boole FDS lay Guéréwaar parce que plan yu leer nañ ñi la am.